Toujours dans votre journal papier de la semaine à la présentation Seydina Tange Tandian mu Serigne Saliou ginnaaw rejeté liste nationale bu coalition Yewi Askan Bi ak euh, Wallu Sénégal xam ngeen ni que ay bés yi ñu génn muy ajuma bi ñu di euh, coalition Yewi Askan Bi def nañu déclaration ñoom ak waa Wallu Sénégal ci biir loolu nak ki di Ousmane Sonko mom dal mi ngi démasqué ay magu yi nga xamanteni Jamoul jamul baaraamu ken kenn ku dul Macky Sall ak Clam nga xamanteni ñom ñoom ñoo nekk si ginnaaw mi ngi xamal dal lu waral tax Macky Sall tere seen marche boobu nga xamante ni bëggoon nañ ko def le trois juin bii ñu génn lu tax Macky Sall euh, tere ko ay maguy la moom ak ay clam nañu déggu ji Ousmane Sonko dellu siwaat cinquant yi weesu ñeneen nekk nañ fi député xam nañ ni député boo yorul majorité yow ak ñàkk député yéen a yem ci assemblée nationale bi nit ñi jàmbaar lañu de gis ngeen min euh, ñi nekk minorité assemblée nationale jàmbaar lañu dangay dem commission xam nga euh, suñu demee sax plénière caméra yaa ngi fi Cheikh sëñ Abdou xam na li ma wax mais commission amul caméra amul dara fa la ñuy jóg dinañ la saaga li ma bañ a tudd dinañ def lu ne boo fa tàngee xol di nga fa xeex commission même chose te mu leer la ni la ngay discuter yow yaa ngi wax ba sa put bi wow waaye ngoon si balaa ñuy jóge foofu di nga gis député bu nelaw nelaw nelaw ba ñu ne wote gars yee ko ne ko wote jot na mu ne wi wote naa su les sénégalais yi assemblée la bëgg mu woy. nañu majorité waaye boudé dañu bëgg assemblée buy assemblée contrôle de l'action du gouvernement luubal gi bëri na ci réew mi gi na suñu pétrole suñu gaz du lañ ko jaay de Xana kay dañuy fédali. bi mu ak bandi wax Frank Timis ma bind ci ab téré. di gaz parce que gaz bi un pétrole téeméeri junni yoon richesse bi tey ci gaz bi la président allemand ah mën naa mës nañ fi ñëw de mais man maa ngi doog a fàttaliku fu ne président allemand ñëw na fi peut-être daan na am waaye gëñ na li ko andi mooy guerre bi am te Russie tey imposé leen loo xam ne ne leen nag sama gaz daan ko jaay ci ni ma neexee ci prix bu ma neexee te da ngeen may fay en rouble dootuma nag ngeen fay ma en euro loolu mooy coow li. moo tax gazu Dakar Sénégal gi tey occidentaux yi seen bakkan lañ ci teg bu ñu amee nag président boo xam ne lu luñ ko wax mu ne wiw nañu xam ni duñu gis dara ci suñu suñu gaz bi ña ngay préparer oléoduc boo xam ne day démarrer Ndakaaru day démarrer suñu ci fële euh, euh, tortu justement tortue bi dem ba Europe fii ngay toog Ndakaaru ñu naan la am nga gaz te doo ci gis dara li xew Congo xew feneen ak feneen loolu la ñuy waajal su dee bëgg nañu xam li xew ci réew mi luubal suñu ressources naturelles yi luubal suñu euh, euh, kopparu réew mi surfacturer marché public yi lu ne xew na ci réew mi bu dee sénégalais yi bëgg nañ li xew ci réew mi dëgg dëgg dëgg dëgg en termes de contrôle de l'action du gouvernement nañu jox coalition bi la majorité six mois lañ leen may six mois di ngeen gis di ngeen dégg wala di ngeen gis lu leen jommal yéen ñëpp bu dee it bëgg nañu ñu voter ay loi yoo xam ne méngoo nag li réew soxla parce que député ñett mooy rôle am contrôler l'action du gouvernement voter les lois et la fonction de représentation mooy xool li xew ci dëkk bi te du yoon boo demee assemblée nationale nga défendre ko fa bu dee loolu la ñu bëgg ci député man de député woon la defe naa taxaw naa ci assemblée lu sénégalais yëpp teg seen bët Mamadou Lamine Diallo mii député la ñëpp teg nañ seen bët li mu def Cheikh Abdou Bara Dolly même chose keneen ak keneen ci ñepp ñu nekkoon député euh, opposition nak nañ ma libal ben député pouvoir bo xamné mën nañ né ragné nañu taxawayam assemblée nationale. bañ né bañ nañ bu session bu amé lañuy ñuy jàllale lépp intervention opposition do fa gis ñu jàllale intervention wa pouvoir bi loolu nak occasion la am nañ ko buñ ko sagané ci fan yi di ñëwit dinañu démarrer benn tournée préélectorale parce que élection dañ koy préparer dinañu fexe ba am plateforme bu ñu bokk te ma wax ni nag man de la ma fas yéene mooy ubbi tournée préélectorale boobu fële ci Fuuta ndax ki yaakaaroon ni titre foncier la fa am bi mu demee ba jaaxle fexe na ba suñu liste ñu compétirul foofu Sénégal kenn moomul kenn kenn moomul fépp ten te ñëpp lot waa Fuuta ñoo gën a sonn kuy sonn tey nett ku bandum bi gisuñu ci dara lu dul ay dige foofu lañ koy commencé ndax am nañu yéene ci ñoom nag la ca des nag mooy fañ jëm fañ jëm dinaa ci wax ñaar ba ñett fa lay bu ci njëkk mooy di araftu préfet de Dakar niñu ñu wa DG l'autre jour parce que dafa jot gis nga lu nit defati dañ koy wax ne mom moko def te tudd ko tudd ko ba paré tiñal ko ba askan wi xam parce que da ngay gis ben way bo xamné bureau lay tok tal climatiseuram di def lo xamné ne na andi ci réew fitna bo xamné ne lu ne xaj na ci loolu mo fi wara jeex fonctionnaires yi nañu dello sen xel man j'ai été fonctionnaire et j'ai toujours refusé d'appliquer un ordre manifestement illégal parce que loolu droit administratif la nous DGE nous sant leen ñu leen sant ñu ni nous du yoon ñu def ko tay lu am ci problème ci fitna ci Nous sommes la ñako def ak seen ministron bi ko def bi leen ko sant il faut mu jeex ci réew mi nañu def suñu manifestation ñom bañal nañ ne ñu fa déposer sax dama yebal ndaw ne ko dem leen manifestation manifestation benn camion lañu fa gaare ak benn tànt juróomi nit amu fa lii lii moo tax ñu tere ñu suñu manifestation est-ce que tappale yu mel nii mun nañ ko continuer ci réew mi on a républicain nag cette fois si ñu bëri ci xale yi dañ ne dañuy dem par force ñu ne leen déet on a républicain mais bu soobee yàlla mercredi mercredi bii di ñëw gannaaw yàlla mi bind xanaa yàlla wàcce fi benn taw bu fort a bu orage

ñun du ngeen mës a gégg ñu wax ci ñoom parce que intéressé wuñu benn adversaire la ñu am mooy Benno Bokk Yaakaar ak Macky Sall taluñu keneen ku jàpp ni nag wër plateau télé yi mbër mbër mbër yeewi askan wi nii wàllu naa Ousmane Sonko nii diw naa le 31 juillet bu ñu commencé wàññi lañuy xam lan mooy loo liggéey politiquement donc militants et sympathisants yi ne leen pas distraire tontu on a qu'un seul objectif c'est prendre l'Assemblée nationale le 31 juillet on a qu'un seul adversaire c'est Benno Bokk Ce leneen nous dul c'est taluñu ko nous ko Les bi mooy wax nit ñi tam ni investiture fait le métti mais suñu nous sacrifice yëpp ñu def ñun c'est parce que réew mi la ci motax ku réew ñor quel que soit ses frustration ci investiture muy wa muy wa yewi nak la waxal ku bëgg a bi rek rek rek vous rek la bis wara yegg kenn ku ne di nga am vous doy ci de waye kenn ku ne dinañ la jox lu mengok sa sa sa sa capacité di nga am doy mais si nous sommes 165 députés Nous sommes des milliers Nous sommes tous ne kon bu sommes dëgg-dëgg réew mi moo ñu ñor d'accord nañ Macky Sall nous sommes remobiliser autour de l'essentiel Nous commençons une pré-campagne comment préparer une bonne campagne 31 juillet nous sommes ak Macky Sall Nous bi may la justice de ce pays conseil constitutionnel parce que li nit ñi di laaj nag jaaduwul de c'est-à-dire li dal tey Benno Bokk Yaakaar bu doon dal na beneen coalition tey kenn du wax am na ñu fi éliminé parce que nee nañ seen parrainage matul moom bi parrainage am ëppee ñu ne kenn du ko fi éliminé nga dégg ay nit naan waaw jàmm réew mi mooy nañu fexe ba liste yëpp dem loolu la justice est par terre la justice ne doit pas fonctionner comme ça le président conseil constitutionnel annoncé la couleur ndax nous savons nga ne mënul def interview dem def ko journal ay équilibre nangam-nangam on est demandeur d'aucune compromission Nous wax que le droit soit dit et uniquement le droit et le droit ce qu'il dit c'est que Benno Bokk élection il faut que l'on mu parce que leneen lu ñu def compromission la compromission bi nag bu dee seen diggante la ñoom ak conseil constitutionnel ak ministre de l'intérieur boo xam ne foog na ni moom ñor na muus na ba di def ay manœuvres ne naa def lii ci liste Yewwi Askan Wi bu ko defee mu porte de sortie pour le conseil constitutionnel mu ne naa récupérer ñëpp Yewwi Askan Wi n'est demandeur d'aucun compromis à fortiori compromission waxuñoo kenn seetiwuñu kenn recevoir ñu kenn fañu ñu toll fa ñu nekkoon la ñu nekk mooy nangu ci rewmi ñu imposer ñu écarter suñu liste lu dul dëgg loolu kenn du ko nangu ci Sénégal waye liñu wax moy on exige du conseil constitutionnel qui applique la loi dans toute sa rigueur et cette loi dit que Benno Bokk Yaakaar warul bokk ci élection bi lolu moy suñu revendication. kon yakarna ni ñoo déggandoo cadre yoy nga xamanteni ni di leaderu Pastef euh, di Ousmane Sonko yëkëti nako ko jam baaraamu tuuma kii di président de la république Macky Sall ak clam nee ñom ñoo nekk ci ginnaw maguy bobu lolu moo tax ñu téré seen manifestation bobu le 3 juin mais téwut woté waat na ben rassemblement bu mag le 8 euh, juin pour ne ñom dal dañuy delloowaat seen manifestation parce dañuy rejeter tay Ousmane Sonko tay bi laay la dimbali mom ha ah, yàlla la dimbali tey ba sax bi bin ko annulé sax tey boo génnoon yow kese doo gis kenn kenn doo ko gis jeunes yi nii dañ laa xoolal bàyyi nañ bu yàgg tey da nga doon dem yow kese yaay gis sa bopp yow kese waaye yi tabaski bi lañ tal waay loolu yàlla amuñu xaru tabaski yi jasneer yi waaw jëre faasu soxna yi ah, yooyu yëpp nga bëgg ko kale meex nga naan da ñuy xeex loo tey ji xeex bi gars yi di xeex ñaata place ñoo siy tëj duñu liggéey ah, ñaata boutique ah? ay violation bi am ci biir gars yi sàcc yeeg ñoom ñëpp ñu ngi ci biir picol bi. moom est-ce que sàcc yi ngeen bu ñu ko sax. yow man dinaa xoolaat say dossier de. wóor na yàlla Ousmane Sonko dinaa xoolaat say dossier tey bi gars yi wallaay taalaay boo ñëwoon dootoo da nga ko rëcc. dinañ la duma duma duma duma duma gis nga bii amoon ak bii passé yàllaa la dimbali da ngaa bëri nag suutu rek sunu borom mais nag moytul moytul dégg nga tabaski bi lan tal nag. liste bo xamanteni ni ko defar yéen a jaarul ci yoon ba ngeen njëkkul jaar ngeen dem conseil constitutionnel def sen recours ñu valider leen ko suñ leen rejeté waté est-ce que du ngeen warul leen delluwaat foofu lu ngeen bëgg a def ay rassemblement manifestation pour déranger askan bi lay waxal nak ay politiciens lañu comme ni ko waxé ñom ci sen bop gëmante wuñu sen biir ñi ngi tamante dem askan bi nak lañuy utiliser di leen souffrir lo ndax tay manifestation bobu dem rassemblement bobu dem amul ben leader politique bi ngay gis jabaram nek ci kanam amul ben leader politique ngay gis doomam nekk ci kanam amul benn leader politique bi ngay gis jarbaatam wala mbokkam wala rakkam ki nekk ci famem nekk ci kanam jël nañu seen ay doom làq leen jël ay garde corps teg leen seen buntu kër ba pare ñu bëgg leen jël génnee leen ci mbedd bi ñu dóor leen ay lacrymogène teg gaañ leen ñenn ñu ñoree leen su ngeen fàttalikoo mois de mars li fa moon fukki nit ak ñeent ñàkk nañu seen bakkan coow la ñu wax ko quelque temps dem nañu seen yoon ana famille ñooñu ana seen parents yi tey ñoom ñoo ñàkk je crois que tey askan bi ñoo war a jël seen courage à deux mains jël seen responsabilité à deux ñoom ñoo làqatu def seen complot def seen deal jël seen ay pas investir leen tey pas yooyu bi ñu demee ba heure bi am ñuy génne leen ci biti ñu ne yéen jeunesse bi na ngeen génn ana pas yu ñu investir woon du ñu woo seen pas yooyu ñu génn mais yéen jeunesse bi la ñuy woo en tout cas Ousmane Sonko woote waat na le huit nee na yéen jeunesse bi la woo pour ngeen sacrifier joxe seen deret yéen nag yéen a xam ndax jaral na leen ko wala jaru leen ko en tout cas muy kàddu yi nga xamante ni kii di Ousmane Sonko yëkkati na ko ginnaaw bi mu defee déclaration.